masawu di ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ñi nga xamante ni am nañ ci ay gaañu gaañu waaye tamit di masawu képp koo xamante ni yàqule nga ci euh, bu ñu sañoon euh, jot gi maye ko kër bu ne ak bërëb bu ne dinañ fa taxaw masawu ñooñu. di fàttali ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def am na kuñ ci jot a teg loxo ndaxte caméra de surveillance yi duñ ko exploité gis nañ ñu def lii nga xamante ni jéey la ndax manifester bokkul dara ak. jël sa alalu morom kii kenn amul benn raison bu mun a expliquer ñu gis kuy ñëw di daj magasin téléphone portable boo xam ni un jeune sénégalais moom moo ko taxawal leneen li ma ciy teg mooy rôlu état la que mu protéger ses population assurer la sécurité des personnes et des biens et loolu incha allahu rabbi dinañ ko def lépp lu ci war dinañ ko def incha allahu rabbi